di nuyu ak a siyaare mboolem ñi fi teew di siyaare bu baax a baax Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ñaan ci yàlla suñu borom subhaanahu wa taala Serigne Mountakha yàgg fi lool tànd ak wér ak ko ko wax di siyaare sunu Serigne Serigne Moustapha Mbacké ibnu Serigne Cheikh Sidi Moukhtar xalifa généralu Cheikh Mouhamad Lamine Baara nga xam ne moo nu jox ndigal lii tey làmbatuwun de noo ngi sant yàlla bu baax di siyaare mboolem kilifa yi fi teew di am kersa lool ci ñoom di leen yëkkati ñu soqi benn jéego rek ngir suñu jëmm ju xeebu ji Serigne Cheikh Sall ma nga nee toog bu ndang ndangu sàll ko sëriñ ndangu sàll sëriñ moor gay bu maraakan kër sëñ Balla gay mi ngi nii toog ak sëriñ abdoulahat gay ak mbooleem kilifa fi teew waaye nuyoo dañ koy teg ci loxo kilifa tund bi muy Seex Moodu Baara Mbàkke ibnu Cheikh Abdoul Ahad Bara Mbacké ibnu Cheikh Mamadou Bara fii ci Mbarakan xam ne lu ñu soxla fu ñu ko yittewoo rek gis ko kooku amuñu fayam Serigne Modou Bara foog ma taxaw fi ndax danoo wétali wéetalunu tànqanluwul kenn xeebul kenn te lu mu xam ci lu baax wax la bu la déggee ci loolu noonu tere la ko sëñ Modou Bara Mbacké yàlla nga yàgg ak noonu comme guddi na nin bëgg nuyoo siyaare mboolem délégation dëkk yi fi teew yëpp Mouhamadou Lam lim na ko léegi mbooleen ko fi teew gis nañ la yëg nañ la ñoo ngi nuyu bu baax di siyaare délégation bu Omar ba ñu jàppee bis bi ba léegi bis bu set mu woonu téléphone nenu li ngeen nekk lu baax la nit day bañ di nuyoo ko félicité bu baax monsieur Mame Thierno Birahim mbay nga xam ne moom daa weex rek tall doo gis tey mu weex ëllëg mu ñuul noo ko nee ndoo màggandoo ma xam ko it bu baax bu yàggul rek dama romb ma ab jakarta mu yor oto ma droité wàcc nuyu ko mu ne ma ëpp naa def bul wàcc di ma nuyu ma ne ko sa jikko rek la waaye du at yi maa la mag di nuyoo ko siyaar mboolem ñi jógee daaru Muxti am na gàllankoor bu am nag man dama jàpp ne xaaju mbooloo mi dikkunu ndax dafa am blocage am xam naa que amoon na ay car ak ay mini car volontairement yoo xam ne gasoil sax du ma ko ca def samay mbokk yor ko fas yéene yëpp nit ñi mu si ñëw fii ñu ne leen ku ci génn garage bi ñu effacé sa tour danaa ko wax nag kenn du ma xoj ba noppi ne ma du ma nekk te lu ma nag dañ maa bloqué waaye fii ma dëgg sama tànk wallahi barki sëriñ baara ak seen doole ba ma bàyyee danoo am li barke borom Tuuba te bu ngeen ma dégloo naa wax nag ndax fii daa mas a metti lool dafa mas a metti ku ñëw mboolem politicien boo doon loolu wax nu gëm ko rek nga wax sa wax ju neex maanaam sa soxna lu mën a togg mën a togg mën a togg cin li bu dee bax di xel lu neex te desu ko yëkk mukk kañ la lay jariñ wax leen mois de février baykat boo ne année sa alleeru baxaw da koy wëri kon alleer lañu politiciens yi jàppee bu ñu nawet rek la ñuy soxla maanaam campagne électorale la ñuy soxla fan yii mbir mu nekk da wax fa mu juddoo ak li la engagé man sëñ Moustapha Bara moo ma yónni fii ci ñaari nit ñu ne fii ci mbooloo mi dinaa ci ñëw sëñ Moustapha Bara ma yónni ndax xaw ma lu ma wut ca ñooña xaw ma lu ma xamale ñooña ma dem ñu ne ma da nga waxtaan sëñ Moustapha Bara sëñ Sidi Moustapha ñu enregistré ma ba ñu noppi ñu toog waxtaan bi ñu waxtaanee ci biir waxtaan yi maa ngi gis ñu ngi xàll yoon bu leer ma gis yoon bi dem ma toog jëm yooyu ñu ngi jataay leen tudd gis nga nit ki rôle bu mu suyee ci yow rek wax ko du wàññi sa mbaax dara wallahi soo ba ñu arrêté ci man ci sëñ Moustapha Bara ak Cheikh Sidi Moukhtar seen ñu diggante ak seen ay relation ak seen taw feex lu ci jotale sëñ Cheikh Sidi Moukhtar ndax sëñ Moustapha Bara ko sañcoon bi ñu ci waxtaanee quelque temps man laaj leen ana son ba ñu ne ma dañ ko enregistré mais son ba dafa baaxul dama sëgg muñ xam ne man fee ne woon dañ ma faa yónnee woon rek ndax ñaar ñooñu keroog ñoo ma sol li tax ma ne danaa taxawal muuma maam jaara mi taxaw ak caméraman am Waarwi TV Touba Mbacké ku ñeme dañ laa déy nag nga fit nag bu doon fukk tey naa juróom-ñeentee genn wàll di xëccoo bi ci des bu ma ko mënee yóbbu ko ragaluma xam nga engagé wu ma woon mais je suis engagé très que dañuy fontoo nag dañuy fontoo que fii dafa mel ni boo jógee Touba wala Louga wala Darou Moussa jëm fi boo jàddee jëm si Tawfekh boo ñëwee fii tali bi yam dafay mel ni fi la xéewal yi yam ay doomu aadama dëkk fi ak bi defu ko de Serigne Sidi Mouktar c'est financé cent trente millions te tawfeex mbaraakan Touba Pétay ndaam loo kër sëñ si Sidi Lo daara ja ak boolu kam kër Basiru Caam chef de village baa ngi nii Alaaji Moustapha Diaw forage bii la fi def ak condition fekk na ñu ndax am nañ ndox fekk na dëkk bi xaaj bi yépp taxu nan dëkk bi dëkk yi gën a rëy ci la bokkoon ñàkkum ndox ak bay muy gànt mooy fi jële man maay ki fi mujj man bi ma sëñ si Muxtaar wooloo fii ne moo bul tuxu doogal fii mel ne ñaa ngi Tuuba billahi ba fi may waxe yow kenn tuxu fi waat kenn moo fi tuxuwaat ca ay raison la ba mu tàggoo sëñ bi bàyyiwu ko ba ko Alaaji Moustapha mi tàggoo wax ko raison yi mu bàyyi ko mu dem booba ba léegi xañtaan la ñoom waaye kenn tuxu fi 1994 boobu fii amul dara doo fi gis néegu ñax baax sax wala wala seng nu toog feeg moom di muñ moom sëñ Moustapha Bara état bu ñëw ñu ànd moom di dundee yaakaar rek ni xale bu xiif naam seen yaay muy ñëw ween wi jox dafa yaakaar ne bu ñëwee rek mu naam te mën naa am dara ci meew nekku ci nax rek <laughs> ma jàpp ne nag jot na sëkk tey ñu taxaw nag xam ne ci senegal la ñu bokk bi ma xalaatee lii pour ma dégtal ko mbooloo mi kilifa yi fi nekk yëpp de demeewuma sama xalaatu bopp Alaaji Moustapha Diop mi laa àndal ak Cheikh Moudou Sall jëw li ñu daara daari sëñ bii dem Mbàkke Kajoor di tàggu sëriñ bi fa mam seeran fa jébaloon fa la tàggu sëñ Sidi Muxtaar sëñ sëñ Moustapha ne ko boo mënee na yem fii mu yem fi boo mënee wéer ko ma wéer ko tàggoo si dong moom fi indi di laaj ndigal ci laay ñëw ci laay ñëw. déedéet xam nga loo denc ay ñaar fukki at ak nangam boo koy génnee mënul gàtt dama daan muñ tey damay wax lu ma ci fekk c'est bon c'est mu may ma ci ndigal ma ne ko dama ko bëgg a taw feex ak taysiir mu ne ma am nga ci ndigal waaye la nga ca mooy li indi xaajale ma ne ko fa ma ko yéene ñaanal ma ci dëkk yëpp laa bëgg woo ñu bokk xeexal suñu réew fii dafa booy nu bëgg mu set wecc nag dañ koo bëgg a bay ñeenti mbay defaraat ko defaraat ko toppaat ko ba mu set wecc bokk Sénégal foo ñëw nañu mën ko fa présenté parce que danoom ay dëkkandoo ñu ay xaal pulaar amu fi fenn fa péelub lampe di tàkk courant bi ci ñun la yem rafetul ba sëñ Sidi Muxtaar góorgóorlu ba indi ko fii boo defee fukki poto mu dem ndéemu lañ nga doon itam ñaari poto mu dem lugg koñ nga doon ñetti poto mu dem ndangu pël waay waay soxlawuñ poste soxlawuñ descentaire ay poto képp ñu bokk Sénégal ñu bàyyi leen la doon ni mu méttee te bu courant coupé kenn ku ci nekk ñu bëgg a ba ci ñoom ministre yi ba ci président de la république bu courant coupé rek imagine-toi monsieur le président Macky Sall bu courant pate coupé woon cinq minutes da ngay am problème waaw da ngay am problème mais xalaatal ñu nekk ci lëndëm passé nañ moment boobu moment bi li tax ñu taxawal ko mooy comme ni ma ko waxee sànq fii dafa mel ni fi la Sénégal yem petañ pële nii jege loolu tubaab petañ poto yu néew ñu amug leer songaan poto yu néew ñu jëlee ko ci perañ per yóbbu si ñoom wala ñu jëlee ko Touba Rof mu ñëw diggante yu gàtt yu yu yomb mais yaakaar naa bu bu demoon assemblée nationale bu Sénégal boo ko tuddee suñu turu dëkk yi dañ naan la est-ce que foofu nekkul Guinée wala Mali parce que xamuñu ko mais dafa jot nag ñu xam nun ñooy ñan dégg nga gis nga nag damaa gërëm kilifa gërëm dëkkandoo gërëm ñi fi ñu si ñëpp mais gis nga bu woon ak presse bu Sénégal ba nëg ni nun kaw kaw yi dañuy wax tali ku cay dox da ngay summi say daal lu gën ko ndax yéen ñuy wax ci xew ah dañuy gëm loo ne tali ku ciy dox ay tànk neen ngay def ta ci nit ñi lañ bokk ah ci nit ñi lañ bokk nañu bàyyi xel boo demee caameen limi lay amul courant pour xëcce ko mbégere gi ci wet daal mu si mu ñëw du dara mbay mu nangu rek man na ko waaye mbaykat doole ji dafa néew loolu état la war aussi nga indi ko caameen poto yu néew nga def mu dem njaañeen poto yu néew mu dem jat mi jóob poto yu néew mu dem caameen coli dem caameen sanc dem kanda dem yëraw ndangu sàll ndangu pël kokki kaw kokki suuf lugu koñ ndingu lañ un ak deux ak xunjul ak mexari caam maa ngi jéggulu maa ngi wax ne am na tur yoo xam ne dama ko bindoon ci liste ba ca kër ga moo tax bi Mouhamad Lam di bind di di lim tur yooyu nekku ci mais mi lépp mi ngi ci liste bi yëpp mi ngi ci xol bi moo ci am solo gis nga nit ki sisee ko xolam rek noppalu man boo ma dajee nit mu ne Mouhamad Lam nii Mouhamad Lam te ma xam Mouhamad Lam dama ko sisee si rek dem sama du ma tardeel yéen ñëpp xam ngeen yéen a ngi ci xol bi te fii amul kuñ fiy beddi ni xaal pulaar ni séeréer ni wolof ku ci nekk jàppe naa sama bopp xeex bi nag li may am am fit bëgg a jiitu ci kanam bu ngeen ñëwul du ma dem yéen rek laa yaakaar émission bi mi ngi tudd Tawfekh ak Taysir damaa waxoon sax sëñ Abdou Lahad mu ñëw leeralal ko nit ñi bala ñuy jàpp ne taw Tawfekh gii ak Taysir gii lañ ko tuddee dañ ko tibbe ci alxuraan na ko na ñi tibbe ci alxuraan Tawfekh ak Taysir mooy jàpp ndal ak yombal sàmm sunu moomeel A2SM kon na ñëpp xam ni moom bi tey noonu la tudd di dox ci lan ànd gu ñoo benn politicien du kenn nag ñun dañoo nekk ci tabax suñu mouvement bu suñu mouvement bu taxawee ba taxaw non lebleetuñ nag déedéet non lebleetuñ mbaa ku ñu dug téeméer politicien bu ñëw fii dig mu téeméer da nga jox trois cent soixante quinze ñu topp la cent vingt parce que boo gañee fàtte nu boo perte li jënd ji la nga perte lebleetuñ de te wóor na ma ne sama mouvement bi nga xam ne sa c'est quarante quatre villages problème mu transport la ñu am mais fii kon nit du fi xaj man xam naa loolu bu sama téléphone xawtu mu xotteku tey nu ñuy def ba ñëw benn oto fi nekk amuñu ambulance amuñu poste de santé amuñu tous te bokk ci Sénégal mais am na loo xam ne ñun mënuñu ko wutal suñu bopp personnellement man cinq ambulances médicalisées dawale naa ko Italie bu nekk danaa dawal ñetti junniy kilomètres ak juróom juróom fukk soo ko dugg territoire Sénégal te bu ñëwee damay joxe caabi ji woon ko ginnaaw te état naan merci moom la war comprendre nga maa ngi xam ambulance yi war a ñëw Sénégal aw ah, ma kenn ku ma jox loxo ma fexe ba ambulance yi ñëw Sénégal te jaayu ma ko te nga feex dell ki bagage yi santé mais ba réew lañ nekk kan war a encouragé kon gis nga ñoom ñoo fekk gaynde gu nelaw ñu yee ko barke sëñ Baara ci kanam rek <laughs> mu mel ni moment bi ci ponk yi bu ñu bu ñu remercier presse bi bu baax a baax a baax a baax la presse Sénégal ils très fort parce que état bi sax bu amee message bu fort France France 24 lay def kañ la ñuy nawloo suñu bopp yéen kan moo leen gën a riche gis nga boo bala la jooyee jàpp nga traversé les quatre cinq pays man bu may ñëw yoonu suufi jaar jóge Italie jaar Espagne jaar Maroc bu ma wàccee Maroc rek damay xam ne maa ngi Afrique mais bu ma duggee Sénégal yërmaane bi ma fi fekk amul fenn mais sunu état yi xamuñu ko nag dañoo jàpp ne rek adduna daal dee amul mais dee dafa am règlement de compte aussi dafay am ci liñ la social dinañ ci attaché wu bu baax ci mouvement bi pour ma leeral ko ñu ko xamul social mooy ki néew doole ci mbir ñu war koo dimbale te gaaw ca nag ndax kuñ dig ren di nga nekk ba cinq heures nga di a soog a wàll ab néew nga fay fekk. waaw. dégg nga ah doo ñàkk bañ taxaw foofu nag ndax man man ku ma kaata nag moo ma fay ma wokkutu te nu fii benn cas maa ngi ci woon la bonne volonté yi fi nekk dafa feebar ah, jigéen ñi wérul la sonn na ñu opéré ko la borom këram yoroon jeex na lay bokkam yoroon jeex na bañ di ko ketal fii ba man sama bopp ba ma ko yëgee ma def te muy dem maa ko yóbbu woon Louga war ko faa ci oto bi ñibbisi ma xam ne miin fu ma fanaan fa suba sama xëy yenn waxta bañ miin fi ñuy jënde ordonnance ak fi ñuy defee affaire encore dañ wax dëkk bi yëpp jàpp ba fañ mën a yem ba léegi mi ngi hôpital Louga tëdd may woo bon volonté yi li tax may tudd foofu mooy sëñ jiilim sëñ Cheikh Assoufay daf ma woo ne ma sa lancement maa bi kañ la ma ne ko demee à partir de 16 mu ne man de damaa nekk Dakar nii waaye naa yónnee benn délégation ma ne ko man de Mbacke da nga maa fekk may wax ci nii may wax ak téléphone benn waay ci sunu benn mbokk bu feebar ku yëngu social bi fi mu nekk laa soxla nga woo mu ne ma danaa ñëw daaru bu samedi xam nga loolu démb ci ngoon la ma ne ko ah li ma waxoon léegi rek ku ñu war a rendi cinq heures nga ñëw ba six nga ñëw doo am néew fekk bi ma ko waxee loolu mu ne ma jox ma Cheikh Fall mu jox Cheikh Fall mu dugalal ma orange ma ne rapidement vingt cinq mille bi ma koy retiré nanguwuma mu manqué frais yi ñëw jox ko kee mu jox ko kooka ba borom jot na ca social boobu ñu ci ciy woo képp koo xam ne li ñu taxawal ñor na la maanaam bu nit sonnatee ñu dimbale ko association bi euh, mouvement bi dana veille trop ci social soobe suñu borom mbiru santé dama ci xam a am lu ma ci xam gis nga am na système bu nekk Europe boo xam ne bu ñu ko defoon ñu bari danañ faju te duñ sonn xam nga mënoo dëkk bu ndaw bu ne nga def fa benn poste de santé mënoo dëkk bu ndaw bu ne nga def fa hôpital mais mën nga boole ay dëkk boole benn oto te yor entretien ba nag ndax bariwuñ doole. man nga xool ñeent dëkk yu jotee nga tabax ko poste de santé te siifur ko nag parce que boo ko siifur zéro la bu fa médecin bi ñëwee tey di affaire ñu ne semaine prochaine kii moo fay ñëw semaine prochaine kii xam xam-xam wàcc wàll màcc wàllutation bi semaine ñu ne kay jabeet boobaa danañ di fa danañ di faju duñ sonn mais da nga fi gis ku feebar koo xam ne ticket ba muy dagg 2000 francs moom problème la koy def sos ka ñaata personne ñoo fi nekk bu seen jabar feebaree fii wala seen soxna bu feebaree Louga lañ ko yóbbu te feeg daal mu sax c'est 9 kilomètres juste feeg Louga ñaata kilomètres amuñu la leen gënal mm-hmm. peut ay médecins foora ngi fi mais amuñu matériel hôpital Darou Mouhty amuñu matériel amuñu matériel mais ku leen war a jox matériel boobu est-ce que di est-ce que état bi te loolu moo fi gën a jege mais bu ñu jël say malade di ko yóbbu Touba wala di ko yóbbu Louga amuñu amuñu pexe bu ngeen weesoo fii di la di da ngeen di réer da ngeen dëpp di laaj tawaat fii ngeen di seen ay lamp bu ngeen demee nii dégg nga tali moom fii la tëjoo yaakaar naa Sénégal fii la tali yem te pourtant bi bu ñu ko ubbi woon mu jaar saam yebal continuer ba belal mu jógee belal continuer ba caameen wala kooki fii dafay ubbeeku day gën a bokk Sénégal mais dafa dafa cerclé woon nii boo jógee woon fii bëgg a dem caameen caameen a ngi nii boo génnee seen ko mais da ngay jaar ne de centaine de kilomètres soog a dem caameen fii nañ ko ubbi tali bi daa war a continuer fii wuru fee yem parce que ñu dëkk fii dañoo bokk ci réew mi buñ ne ma kenn fay du ah, xam nañ li xew nag parce que am na taxe yoo xam ne bu ñu ko teggoon ci kilo suukar day yomb lool te état bee ko ci teg ni ceeb ni dawlin ni tama ni bañ ciy teg ba ki koy jaay mënu koo jaayee lu man manqué nangam buñ ko buñ ko teggee woon danañ ko mën a jaay ci lu yomb kon ñëpp ngi fay taxe dafa am système buñ koy defet yaakaar ni ñi xamuñu ko imagine benn kilo ceeb buñ ci tegoon dërëm rek Sénégal ñaata kilo ceeb lañ fi xëy togg foofu ñaata la fi bi gagné te kenn du ci bàyyi xel nañ ñu ngi rey ba nga ne duñu wéqu. kon daal ñu gis ne côté bi état dafay lompañ daal. dafay lompañ danoo xamuñu danoo xamut. te fii ma déggoo li may wax dafa xoolal yow naa la ne la fii Macky bi muy campagne deuxième tour feete mbaar ma fekk sëñ Cheikh Sidi Moukhtar. Ah. Moustapha Cissé Lo chaque trente minutes mu woo ma ma mbaa a siyaare ma ko déedéet bu ngeen ñëwee da ma yow bi Macky Sall ñëwee ba dem rek moo la fi bàyyi woon bi tooñ bi Macky Sall di ñëwee pour mu as sëñ bi jafe ni maa ne ciix loxoom nii di ko woo man mu Macky Sall mu topp ci man mel ni lii nu ah, loolee ñu jub si di ko woo mat moom ak Farba Ngom ak Moustapha Cissé Lo ba ñëw ba diim sëñ Sidi Moukhtar wéet lu ñu mën a toog ñoom ñett ñu toog ko wax seen soxla sëñ Cheikh Thioro Ba mu wax ko sëñ Sidi Moukhtar mu ne ko tàllalam ñaanal la keroog la falu ko mu neex ak ko ma naqari booba la mujj taw feex dafa ñu nag ay nit lañu gis nga lii lancement bi la rek bi ñëwagul ragaluma teg naa sama tànk ci kanam xalaatatuma arrière barki sëñ Baara jeex na. ba yàggutoo ab réunion laa tax sama buntu kër sama ab réunion sama soxna lañ jox rendez-vous ne ko dajaleel jeeg gi dañ leen di sampal mbootaay ma ne ko mairie ak mbootaay mairie ak ah, ñoom ci dëkk yi dañ sampali mbootaay xanaa parce que jàpp nañ ñu xamuñu dara ñi ngi dee toog gis nga bi ma jogee daal daaru mu si yendu bi ma ñëwee fekk sama burgër fees delle yàkkamte na marché ba jakarta bi dafa maa daaneel te kaay leen ma wax benn affaire bala maa romb jakarta cey jakarta nee leen cey jakarta xale yaa ngi ciy liggéey di ci faj seen i aajo di ci yor seen i waajur dañ toujours ñu dem torturer am na ñoo xam ne saa bu ñu bantee sax attaqué jakarta yi jakarta bu ñu jàpp nga fay 6000 wala 3000 daa war a jeex nag ay ndaw lañ tawutuloo leen liggéey ñuy sacrifier def seen bopp dañ leen bàyyi ñu liggéey nañ leen de ñu bokk ci askan wi parce que gisul ñoom indi luñ leen lu tane. xam nga bu ma wax affaire sécurité dama waxtaan ak benn xale keroog dama ruus benn xale dama ne ko waaw taw lu muy jariñ mu ne ma boo ci dox mu paccatal say daal la ma ma ne ko léegi takk der ñi taxaw kii lu muy jariñ mu ne ma xanaa taxaw tali bi arrêté oto yi kon kooku xam na sécurité kon sécurité ana sécurité ah ana sécurité bi. ñun suñ tali bii dana am lu ma deux mois yoo xam ne wala trois mois yoo xam ne auto sécurité du ko te waroon nañ léeg-léeg ñu dugg fi def benn tournée ñu xam ne ñun am nañ gendarmerie wala am nañ police man lu ma li fi am daay wax fu ma fanaan ni baax na dégg nga xoolal ci suñ jigéen ñi ay financement yi procès dañ koy dégg rek ñu ngi nii kenn mënu leen ay jàmbaar lañ waaye dañ koy dégg rek te pourtant jigéen ñi ni jox ay financement ñëpp ay jigéen lañ comme ñoom mais dañ koy dégg ñi ki collecté fii suñ cinq hectares ñaataat bu matul huit ans mat na mat na neuf ans mënatuñ caa bay ñebe mënuñ caa bay gerte ñu collecté ko def nañ ko ndox lépp goutte à goutte mais mënuñu ñu ba jigéen ñi dafa def dara te fii basante nangu na fi salaat bay nañ ko sama kër ma reer ci reeraat kon nañ ñu taxaw ndox mi man naa bay lii nii pour rek dama ne la cay Jakarta sànq ñu delluwaat mbooloo mi yëpp Jakarta laa ko campagne yuruma oto de Jakarta fii dëkk bu ne nga fekk Jakarta da ngay dem ba yaa foo xam ne maa fa soono woon ndax am yéen yëg-yëg bëgg àgg fi ma jëm rek Jakarta laa campagne ñëpp foo ma fi dem fu ma fi àggul nag nañu xam ne manqué da moyen moo tax ak si ma fu waaye su ma sañoon kenn ku ne damay tax si bunt salaamaaleykum nga ne ma maaleykum salaam nga génn ñu waxtaan na ñëpp xam loolu bàyyi ma kenn dinañ komba ndax suñuy carte électeur nag noo ko moom te li ma gën a neex ci mbir mi matagul weer bi ma taxawalee lii matagul weer ah maam jaara mat na weer wala matu ko après Daaru Salaam laa commencé bind centaine de personnes ñu ngi fii te Daaru Musti ka meer ba ci laa ay nag a nit kilifa woo na bu biir këram ma bindal ma ñëpp mar sama njaboot kàttan yaa ngi nii foo wate fa watee te waxaguma dara man waxaguma dara de ñu jàpp boo demee fii Cheikh du ma leen tooñ seen maire bi fii nii nga xam ne xëy na ñun ci foofu lañ bokk sax léeg-léeg maanaam buñ bu fay lempo jotee daañ xam ne foofu lañ bokk ndax daan nañu ngeeseb lempo waaye safara ci biir safara lañ fa def seen lampi saleer yi bu ngeen dem yéen journaliste yi na ngeen ko xoolal seen bopp niñ ko rangalee ci tali bi te am ay village yu leen war yoo xam ne amuñu courant fil bi jegewu leen ñu kañ lañ koy am buñ ko séddale woon dëkk yi yi ko yi fiilu courant bi sori lu néew néew néew bu guddee ñu am ñetti poto wala ñeent fa ay gone yi daan dem di focca leer ga waaye gone yi lëndëm gi yàq na leen xam nga ne gone bu reere rek tëddi amul lu ko gënal bu gisee ak leer fooy ndaw ñi nun yaakaar naa la wax cin bu naree neex bu ba xeeñ yaakaar naa nag ni naa fekk ñu ne ah njagamee day daal mu silay xëy ca meer ba wala njaga mais de politicien sàngam moo ko recruté muy liggéey au moins buñ ci jëriñ ñun ñëpp am na ko ci jëriñu kenn ku nekk xam na ne ndaw ñi fii tumburanke nan parce que amu ci kenn daa nekk ku mën a bind turu ndayam ak turu baayam mu leer te du am fot yombut te lu ko waral ñàkk ay école yi ñu jànge mun ñoo jóge fii di jànge Daaru Mus mun ñoo jóge fii di jànge ci Ndar ñu dëkk fi la ñu war jànge te moom fa def école pourquoi da ngay gis juróomi dëkk yoo xam dafa mel ni triangulaire duñ ne cap foofu école ca diggante ba ñeeri jàng si ñii di jàng si ak mu ne daan am classe bu jàpp indi postage diggante bi képp buñ fi defee école diggante Mbaraaka nag Dimyaan ak Touba Pétagne ak Tawfeex ak Kër Basiru Caam yi di fa jàngee ñun suñ dëkk bii am na école boo xam ne fañ ko tabax baaxul nañ ko tabaxee baaxul boo demee Ndeef lañ fa denc ndax mun ñoo fexe ba am oustaz bind nañ bindati bindati bindati luñ ci man ndox leen yéen ñëpp laa bëgg ngeen xalaat ci rek ndox mu neex kër goo dugg mu juróom-ñaari néeg juróom-ñaari bidon bi deux cent euh, vingt litres nga fa ku nekk di jënd bidon bi deux cent franc kooku calculel ma rek un un un rek ñaata la ci xaalis nga calculel ma un an yi est ce que mënul gas forage fa ndox gën a neexee tiire ko mu ñëw wala déet bu ñëw ma ñu def ko dañ leen a ñorul Assane Sané yow ak maam jaara maa ngi leen santaat bu baax a baax ndax sababu engagé gu bii saf ngeen ci sàpp maa ngi leen di remercier te lii nag fi may tënk rek mooy gis nga lii bu ma ci yu jubluwul njariñal tund yu bañ taxaw naan lee sun booloo gaanu ko may rek yàlla ma ci am dara loolu rek moom laa ci def rek yëg mairie bi moo ko mën xaar sa candidature ci ah, nañ bañ a xaar sama candidature mën nañ ko xaar xam nga ku ñu xam fa nga jëm doo yegg te man xam naa ni ñi ñëwul tama moom seen électeur moo ëpp ñu ñëw man xam naa li ma xam laajagu ma nag waaye ku ma àndal da nga am dara ku nu àndal laa wax de waaye ku nu àndal am dara ndax bi ma toogee fii gis ngeen ñu bari ñëw di dey xamee ko woon nii waaye kon kenn du des fu ne woon nañoo fi ne problème transport la ñu am parce que fii amul tali amul tali nii des na nii tuuti ba demee fii bala ñoo jën gu bees tàq bala ñu ko buñ ko nappee woon daal sax bala ñoo àgg seen kii mu lax waaye ci Sénégal lañ bokk nag nañ ñu déggal ngir yàlla bàyyi ñëw di ñu wax lu du dëgg mënatuñ koo gëm wax ju neex ma mënatu fee may kenn dara jëf rek jëf rek maa ngi sant ñëpp di loo xam ne waroon naa ko wax ci njëlbeen nga ci nuyoo ak sant ñi fi teew mboolem ci kilifa ak ñi fi teew rek loo xam ne fàtte woon naa ko rek maa ngi koy jéggulu te xam ne wax bu jubee suñ borooma bu dëngee mat dig doomu aadama lu ci dëng maa ngi koy jéggulu lu ci jub yàlla nañ ko jariñoo bi jaay séddal wu joor buonasera buonasera a tutti voi ringrazio che siete essere qui del nostro lâchement nostro mouvement e poi noi integriamo il nostro fratelli che hanno in l'estero, in Francia, in Spagna, in Italia e tutti paesi africani. E le persone che vivono questo nostro sonno abbiyaamo alsatto mittiyama peedi davanti par andare davanti camyama tutti woy ko venite andiamo avanti par ce que nostre gourne la say sano prende no jiro a noi veramente a sano prende no jiro molto a noi per che loro pensano che solo devono vivere bene ma dobbiamo vivere bene anche noi perché siamo senegalesi e poi siamo persone come tutti ma io chiamavo e tutti emigrati che questa sono i fuori e venite nostro associazione e nostro e muma e poi andiamo ad andare avanti. Grazie, ringrazio tutti, ciao.